الحمد لله ذي الملك والملكوت الحمد لله ذي العز والجبروت صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi yéen ñi nga xam ne nañ ñu topp ci seen seen bii di Ibrahima TV seen bi émission bi nga xam ne mooy bibliothèque de la fayda ñi ci ànd ak ci tere bi nga xam ne mooy nujumul huda fi kawni nabiyina afdali man daa ilallahi wa hada muy jàngale rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dayoom ci mm, yonent yi maanaam dayoom ci biir yonent yi waaye bi taali dayoom ci mboolem bi def kerek gis nañ Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu gaaral na daal teg benn point mooy point bi bi moo gën ci nit ñi moo sax far gën yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom ne wa ala alihi wa sahbihi julli googee yàlla na mu law ci ñooñam ak saxaabaam mu del indiwaat beneen gaaral ne sax de wa ummatihi xayri ummatin uxrijat linaas xeetam wi nga xam ne mooy xeet wa nga xam ne yàlla daf ko setti ci yéen ci xeet yi mu nekk xeet wi gën ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas leen ko may mooy taamuruuna bil maarufi tanhawna ani munkar bi moom gawxaat zikru moo ko lay maanaam alquran moo ko lay parce que dafa ne wax ji yàlla wax ji ma wax ne xeetam yi ñoo gën ci xeet yi na nag بنص الذكر والآيات لو نكتكس لبو خمني آه، القرآن موكو موكو اللير جسنا القرآن موكو إندي فر لير أمور ربي المعروف تنهون عن المنكة دنگ وتؤمنون بالله كون إندي نبنان غارل نيار أيو خيتم ويتم موبن تخيري كون دفو ملني لين جسون كرق موي وخجي يوب موي ينتبه جنجي مو جنجي مو جنجي مو جنجي léegi nag dafay ñëw ci di leeral loolu incha allah des ci téere bi yëpp dafay ñëw doon wax dama jàppoon ne da jarul sax tontu ma gis naa ne dana tontu kat ndaxte ñi nga xam ne seen xam-xam ñu ngi koy déglu ñi nga xam ne seen njiit yu beew la beewal na leen suuxal leen ci réer ñu ngi topp leen ci wax yoo xam ne ak loo xam ne du dëgg ñu ngi fi te ñoom lañ wax mooy dara ci luy wane ne yonent bi moo gën yonent yi amul mu ne ah fa xiftu an an yazqaal awaamu al jahlatu ila tilkal xusan bilaad ma ragal nag ah, ñi nga xam ne ay am lañ amatu naas aksara naas laa yaalamuun la alquran wax ci nit xamuñ yëpp ci nit xamuñ kon nag ñi nga xam ne dañoo ñàkk xam ba réer dab leen ñu daal di réer mu ne dama ragal nag ñooñe ñu sóoxal leen ilaa tilka xusan bi laat ci waxi caaxaan yooyu waxi neen yooyu e, ba loola mujj lor leen lii kat moo waral fa xayattu lahum jawaaban ma tënkal leen bile bile tontu muxtasiran may ma daal ko tënk na gàttal ko xadra himami ahlil asri kem yitte ñooñ jamono jamono ji nit ñi dañoo gàtt yitte ci topp wax ju gudd bu wax ju guddee rek mën nañ caa yokkat nit ñi seen jab seen taa tënk na leen ba nga xam ne lu bari mën mënatuñ ko mu ne moo ma gàtt ma jël tont bi ca wax jañ ne yonent bi amut preuve ne moo gën yonent bi ma tënk benn tontu ma di ci tontu ñooñee tontu bi mu tënk bi ma ko tënk nag ah ne ma tënk ko ngir comme ñooñ jamono seen yitte fi mu toll rek fama tasifu bihi min qillatil mubaalaat ànd ak ñooñ dañoo seen melokaan bokk na ci dañoo yit dañoo dañoo dañoo melokaanoo néew lu ñuy faale dara lu ñëw rek ñu daanaka duñ ko faale daanaka dañ koy dañ koy xoyofal rek na ca lañ nekk fa qultu ma ne inna tafadula naka ngëneel baynal anbiya ci diggante yonent yi mazkurun luñ tudd la fil quran ci alquran al aziz alquran yu màgg ju tedd ji tudd nañ ko ci wa muhammadu muhammad afdul anbiya moo gën mboolem lanbiya wa mursalin ak ñuñ solo ñu yónni solo ñu ñëpp moo leen gën afdal moo gën anbiya afdul anbiya mooy gën gi ñuñ solo mooy anbiya wa par mursalin moo gën ñi xam ne leen dina وهذا ليباي رضي الله عنه اوضح موغن لير من النهار تي بچك فما يحتاج دو سولو للدلالات تي اي بروف قال واخنا نه قال واخنا نه موي نه واخنا نه كيف يصح في الاذهان شيء ما تحتاج النهار الى الدليل كاين لي ويرتي تي خلي dara saa yu ñu demee ba ne kon suba ji dafa soxla ñu leeral ko xel yi bu fekkee dañuy dem euh, wala bëccëg bi xel yi su fekkee ne dañuy dem ba soxla ñu naan bë bëccëg duñ ci bëccëg lan mooy preuve bëccëg nañu leeral bëccëg bi lan mooy preuve mu ne kon dey la muy tekki mooy xel yi dara nekkatu ci ni ñu amatu xel kon su bëccëg bi soxla preuve waaye itam mu ne mooy tolloog xel yi dara nekkatuñ ci bu fekkee ne dañuy sikki sàkk ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngeen gi mbindee te mbir mi nekk loo xam ne alquran tudd na ko leeral ma ne yonent bi moo gën ambiyaawul moo gën muslim te mbokk mi lii moo puus borom téere bi ci mu bind leeral li tax yonent bi nekk afdalil dégg nga kon mu mel ni képp ku yëkkati sa xalimba di bind jëmee ci mbir la ko waral mooy am nga lu la ci puusé daafi yaal yoo xam ne ñu la puusé ci bind loolu nag la ñuy leeral radiyallahu anhu ba amma baado fa inni mundu iddati sanawatin asmaa maqalaati yunsabu li baadi ahli millati islamia ne ginnaaw loolu man dey moo ne diiru ay at maa ngi dégg ay wax yoo xam ne ñu ngi koy askanal ci diine lislaam ay wax yoo xam ne ci diine ji ma def loolu nag fi adaatu xuraafaat ma jàpp ne rek lim ko rek ci limi xuraafaat yi nga xam ne mu ngi am mooy bu ñu ne xuraafaat nag mooy ay mbir yoo xam ne tëral nañ ko waaye dëgg-dëgg ay neen la rek ay wax yoo xam ne topp nañ ko waaye dëgg-dëgg ay waxi neen la dafa mooy ma jàppee ko noonu rek waaye ma dogu ne du ma sama xilima mukk di teg sama big bind ngir tontu yooyu nga xam ne ay waxi kalaam faareex la ay waxi neen la ma ne lii daal jarul ma ci tontu waaye ma dem a dem ba yëfee siiw ma dem dem ba yëfee tasaaroo te ñu ëpp ci ñoo jawaay ci ñoom jamono ji nag ay mooy yoon la mënuñu bind loolu lu néew ci ñoom moo tax mu ne xatta shaa wa zaa wa aksaru ahlil ansur umawiyun la ya'lamuuna al-kitaab ñu ci bëri mënuñoo jàng xamuñ li xew illa amaani loolu rek ab ay ay ñu néew rek néew rek ci xam mbind ak jàng ñu ci bari loo leen wax rek loolu la ñuy gëm dégg ak itam yemu ca la ca gën a garaaw mu ne wa maa saxrafa lahum ru'usaahum min al-ghayyi wa ñu ci bari nag la seet la nga xam ne taaral nañ ko seen taaralal nañ leen ko ci ay beewtee ki réer yoo xam ne dara tegu ci ci xam-xam loolu itam mën a gis naa ne bari na lan mooy wax ja ñenn ñi jànguñ xamuñ li dëgg-dëgg liy dëgg te am na ñu xam ne ñu ngi yor seen làmm ñi di wax mu ne noon naa duma ci bind waaye ma dem ba yëf yi siiw nag ah ma xam ne nag faaw ma faaw ma bind wal ma xaalu wax ja mooy innahu ma sama dalil ne dëgg-dëgg li fi am mooy ne dëgg-dëgg li am mooy ma sama dalilu ala anna muhammadan afdalu min jami anbiya gaañe ne dëgg-dëgg daal li fi nekk mooy amut benn dalil benn preuve buy wane ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën mboolem yonent yi ñooñ arbaabal xaqaayiq wal mujizaat yonent yooyu nga xam ne ñooy borom xaqaayiq yi borom may yàlla yi kawe ya ñooy borom kéemtaan ya ñu li gaa yi wax yi mën nañ ci jële ay dars yu fort ne mbir daal su fekkee ne am nga ci xam-xam man nga caa leeralal nit ñi bu wax jógee rek amatoo ngànt ci noppi yow daal da ngaa war a jóg bu dee loo war a wax ñu dégg nga wax bu loo war a jëf ñu gis nga jëf bu fekkee ne dara yëpp mënu caa am itam la des rek mooy nga fas ci sa xol ne loolee àndoo ca من حديث بين صلى الله عليه وسلم وقال لا من كل منكرا يغيره بيدي ولم يستطعه بلساني ولم يستطعه بقلبي وذلك أضعف إيمان parce que ci xol naqarlu ko mooy li gën a mooy mooy mooy li gën a suufe ci jéem a dindi dindi dindi lu baaxut dindi yàqute yent bi ne su ngeen gisee yàqute da ngeen ko dindi seen loxo su ngeen ko mënut ngeen dindi ko ci seen làmmiñ su ngeen ko mënut ngeen fas yéene ci seen xol li wuute gi ngeen wuute loolu waaye naqare gi leen loola naqare waaye ma ne jàngee nañ ci lii borom képp kuy borom xam-xam ci mbir nga gis loo xam ne dafay réeral askan wi dafay réeral nit ñi dafay yàq ak lu xew rek da war a jóg leeral li tax nga koy def mooy fexe ba ñi nga xam ne xamuñ bañ a gën a réer parce que nag li ëpp ci nit ñi ñoom sew-sew yi nekk ci xam-xam ñoom duñ fa yegg duñ ko xam soo xamee li nga xam rek noppi leer la loo ki nga xam ne xamul dafay mel ni sa xam-xam bi yow yow rek lay jëriñ te xam-xam nag dafa war a jëriñ borom dafa war a jëriñ képp dañoo nekk ci jamono joo xam ne wala bépp jamono la ñeenti nit ñoo fa nekk ñeenti xeeti nit koo xam ne xam na te xam na ne moom de xam na mu ne kooku nañ ko jege te jëriñu ci moom ñu ko jege rek dinañ jëriñu waaye koo xam ne dafa xam moom xamul sax ne xam na kooku dafay nelaw nañ ko yee mu jàngale nañ ko yee mu xamal nit ñi ak koo xam ne moom xamut waaye moom nangu na ne xamut kooku dañ ko war a jàngal bu jàngee rek dina jëriñu parce que moom xamut waaye nangu na ne xamut aywa kay fa mu nekk mooy ki xamut te xamut ne xamut kooku seytaane la nañ ko moytu te yoo kooku itam mooy ki bëri ci jamono nga xam ne moom xamut daara waaye moom xamut loole jàpp na nit ñi moo ci gën a xam foo ko fekk rek mu ngay wax foo ko fekk rek mu ngay wanewu ñooñe nag ñu mel noone nag ñoo tax góor gi bind ndax dox na ko ci biir waxam am na ñoo xam ne ñu ngi réeral nit ñi yoo nekk ci ay waxi neen ma xam ne su ma bàyyee dinañ sooxal aw nit ci yoo xam ne dara teguwu ci yoon mu ne moo tax ma jóg jël sama biir ngir leeral jamono bu ne nag ñu am nañ daanaka sax suñ jamono bi danga naan ña waroon a wax ñëpp dañoo noppi ñu warta wax jóg di wax ak bari ñi waroon a wax noppi ñi waroon a noppi far di wax loolu nag bu amee ci jamono rek ma ne sa su rëy dal na borom xam-xam yi sa su rëy ñëwal na borom xam-xam mooy ne dañoo war a jóg nag li raddil fi'li jël yëfi jéem ko tegaat ci mu ngi noonu kon buñ gisee ci xoolee ci suñ ñaar yi dinañ xam dinañ dégg ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom mooy moo gën la anbiyaaw yi lu tax dinañ ci déggee bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gi mbindeef mbindeef yépp moo leen gën nga ne lu tax ba tey ñu déggee ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetam mooy xeet yu gën ci xeet yi nga dellooti lu tax lu tax lu tax yooyu moo tax a jóg téere bi dina la ko indil point par point incha allah ba suñ paree rek bu ëllëgee sooy waxati ne yonent bi moo gën nga man koo lay soo waxati ne dégg nga xeetam wi ñooy xeet wi gën nga man koo lay incha allah lii moo doon suñu tey ci seen xanaat bi seen seen bi nga xam ne mooy Ibrahima TV seen émission bi nga xam ne mooy bibliothèque de la fayda te àndoo ci seen mbokk Xasan Kebe a Suufi a Tijaani wa salli llahumma wa sallim ala sayyidina wa mawlana muhammadin mbokki jullit mbokki ci yàlla le Ibrahimiya TV di chaîne YouTube bu mag bi ngeen xam ci dëkk bi moo leen di yëgal ne indi na leen lu bees tàkk tàkk tàkk muy émission bu am solo bi ñuy dippee bibliothèque de la faydatul Ibrahimiya émission bi nag fan lay amee moo ngi amee ci seen YouTube bi di le Ibrahimiya TV ku ñu koy amal mooy oustaz Assane Kébé Assoufri te nag Oustaz Assane Kébé Assoufri dina amal émission bi ñaari yoon ci semaine bi maanaam semaine bu jot dinañu defal émission bi ñaari yoon ci bés yi nag lay am talal leen seen baaxam dina am jeudi bu jot ak dimanche bu jot mbokk yi maa ngi leen di fàttaliwaat ni nag dina amee ci la Ibrahimiya TV ñu gën ko xamee ci l'univers des Barhamiya mbokk yi ci yàlla xam ngeen nag ku wax univers da nga wax ña fa te ku wax doomu aadama ala xaal da nga wax seeni itte ci sàkku xam-xam rawatina nag ñooñ mawlaana cheikh al islam el haaji ibrahima ñas radiallahu anhu looloo waral le Ibrahimya TV daal di leen di indil seeni émission la bibliothèque de la fayda ñu ànd ceeg kan oustaz Assane Kébé as-Soufi daañu dugg ci biir bibliothèque bi nag daal di leen di jàngal ay mbind Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moo xam ci ay téereem ay lettaram ba ci itam ay xutbaam waaye nag duñ ci yem de dañu leen di toppal ay mbind yeneen boroom xam-xam ci biir faydu bi maanaam ci faydata tijaaniya bokk na ci téere bàyyi yu ñuy tàmbalee yi may bëggalim benn bi ci njëkk mooy nu juumul huda bi ci topp di maqama dina asalasa benen bi di bayan wa tabi bu ci topat di diwana siter sitta bi di jamu yu bi nga xamantene cheikh ibrahim moko bind mbokk yi nak le ibrahima tv comme ni ngeen ko xamé moy l'univers des barhamiers fo xamanteni day rafet sel jek manam day sa sap maulana barhamu ibrahima nyak amul lenen amul keneen mbir mi bàyyi rek la bàyyi kese bàyyi kepp kott bàyyi dong kon nag mbokk yi teewlu leen émission bi ndax seen njëriñ kese ngeen ciy gis asalaamaaleykum wa rahmatulah